ma sëriñ Touba nee na keroog bisub ajjuma bi njëkk ci weeru rakk gàmmu ci atum 1313 ci lañu xëy dem ca gaal ga sëriñ bi nee na foofee ca gaal ga fa lañu yendu fanaan fa mu ne bi ma nekkee ci biir gaal gi mbooloo ci murid yi fekk nañu ba fa ànd ak naqar ak i jooy Cheikh Mouhamadou Lamine mu ne ka jiite woon murid yooyee fekkoon Serigne Touba ca gaal ga mooy Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne mooy seen mag mu ne ci mbirum gaal gi ak ci Cheikh Ibrahima Fall mi ci la Serigne Touba doon waxee bay di naan allamani rahmaanu fi safina bi annani xadimu zil madina Serigne Touba mu ne ba ma nekkee ci biir gaal ga la ma yàlla xamal ne man maay xaadimu rasul liggéeykatu liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu ne wa qaalat as-safinatu al-mumtali'a qaylulatan ma'al mabiti bi mu ne gaal ga ko duyee bam fees foofa la yendu fanaan fa ak mbooloo moomee nekkoon ci biir gaal ga nee fi fulkihi al muriduhu ay yafatan mamxuuni wa waddaca almuridu thumma rajaca ila aljazirati bi xalbin wajaa sëriñ bi nee na bi mu nekkee ci biir gaal gi muritam ba fekk na ko fa ànd ak awtis lool dal di tàggoo ak moom mu dellu ànd ak xol bu naqari sëriñ Muhammad Lamin Jóob nee na murit boobu sëriñ Tuubaa di wax nag mooy Cheikh Ibrahima Fall moo tax ci loolu la Cheikh Ibrahima rawee keneen ku dul moom mu ne bi sëriñ Tuubaa nekkee ci biir gaal gi am na ku ko fekkoon bëggoon ko laabire naan ko am na kilifa gu yees gu fi nekk goo xam ne jaxasoowul ak waa réew mi kooku de jàpp na ne boo ko bindoon bataaxal wax ko sa mbir xamal ko ne dañ laa tooñ kon dina delloo ci sa kër ci sa njaboot sëriñ Tuubaa nee na waa jooju sonal ma ci loolu ba mujj sax ma nar def li mu wax dal di jël sama daa ak sama xalima fas yéene bind kilifa gu yees googu muy wax waaye man daal ba ma tàmbalee bind rek ci la sunu borom waxanteeg man ne ma xanaa du dangaa nar a jàmbat say aajo ci mindeef ne yow bàyyi ma fi sëriñ bi nee na bi ma déggee kàddu googu daanaka xaw faatu ndax tiitaange ak rus moo tax dama di far farfasa la ma jotoon a bind bi ma defee loolu teewul waa ji moom diwee rek ca la mu nekkoon naan ma bu ko bàyyi bindal bataaxal bi rek Serigne Touba ma ne ko mukk xalaatuma ko ci àdduna ne ko wax jooju moom teg ko fi suuf sëñ Mouhamadou Lamine mu ne ci xew-xew bi ci la Serigne Touba waxee bayit yi wa talaba allazi al amiru maa alxadimi naasixan an yursila barawatan ila amirin xadima min ardihim wa maala thumma nadima summa maxal xadimu maa xat kataba summa lahu xuutiba samma biktuba wa kataba alxasidata almaqbula li zikri man yuri bihi sabila Sëriñ Tuubaa dafa wax ne am na ku ma doon laabiire ngir ma bind bataaxal kilifa ak tubaab gu yees gi nga xam ne jaxasoogul ak waa réew mi te dugalaguñ ko ci seen tappale yi te su ma ko bindee de leeral ko sama mbir dina ma bàyyi ma dellu ci sama njaboot ba ma nar def loolu waaye sunu borom dafa daal di wàqante ak aji liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi maanaam moom Serigne Touba sunu borom daa wàqante ak moom mu daal di dellu gannaaw ca lam naroon a def mu ne waaye it booba la am ndigalul bind xasida goo xam ne dafa delluwaat ca boroomam xasida googu nag sëriñ bi mi ngi ko tënkee wa ufawidu amriya ila allah inna allaha basirun bil ibaadi xasida googu nag mi ngi tàmbalee ci wajjahtu xattiya ilal maliki zil ardi wassamaa'i wal muluki ba xasida ga jeex mu ne jubale naa samay mbir ci buur bi borom asamaan ak suuf tey buurub buur yépp sëñ Muhammad Lamin nee na ginnaaw bi sëriñ bi yendoo ca bato ba fanaan fa ci ëllëg sa di bisub gaawu maanaam bisub samedi ci la bato bi deqi nag wuti Gabon نافي مسلم بالسلام الاختتام له على بدر الكرام والغتام